inclusive dinañ ko dalal booru 8h45 minutes léegi ñu jàll ji xibaaru biti réew yi ca Haïti la ñuy dem foofu jëwriñ bu njëkk ba mujj naa démissionné ginnaaw ay weer bañ ko fitnaale. Ariel Henry mujj tekki ndombo tànkam uh, ci uh, réew boo xamee ni uh, daanaka ci kaw la nekk jamono ji ndax band criminelle yi gang yi daanaka ñoo ko contrôlé ci noonu le premier ministre bi nga xamee ne jamono ji dafa bloqué fële ca Porto Rico annoncé tekki ndombol tànkam moom Ariel Henry. américains yi nag nee nañ ko su bëggee mën na sax euh, toog foofu bañ a euh, ñibbi euh, dëkk boobu di Haïti nag nekk ci ay jafe-jafe ndaxte seen président ba di Jovenel Moïse dañu ko faatoon ca 2021 boobu ba léegi amuñu njiit premier ministre bi tegu ci muy réew boo xamee ni jamono ji nag mi ngi ci guuta xamee ni band armée yi ñoo fay def li ñuy wax la loi fële ca Côte d'Ivoire obsèque ancien président yi di Henri Combadé nag fixé nañu ko ñaar fukki fan ñaar fukki fan euh, ci weeru mai bi ñu dëkk euh, dëkkmal loolu nag ñu ngi ko fësal démb ginnaaw président Alassane Ouattara bi mu dalalee njiitu PDC yi di euh, Tidiane Thiam nee nañ nag ci ñetti pàcc lañ ko bëgg jagleel bu njëkk bi dañu koy amal maanaam dañuy ubbi période condoléances yi laata ñu koy sargal ndaxte njiitu réew la woon moom Henri Conan mbéj yi euh, bi ci des nag moo ñu yóbbu ko ca dëkk ba mu fekkee baax di euh, Péprisu jébbal ko foofu euh, boromam ñu dem ca Gaza soxna Ndaata ak euh, askan ba fa nekk nag démb la woon seen bës bu njëkk ci koor gi muy bés bu tiis ndaxte bi ñuy ndogu daal métti woon torop ndaxte Gaza daanaka famine la ñu jàpp ni moo fa am ak raid aérien maanaam ndel yi nga xam ne ñi ngi koy dóor seeni kaw moom lañu dundee démb ci guerre bi nga xam ni mooy dox ci diggante Israël ak euh, Hamas Donald Trump fële ca États-Unis moom nag nee na su falo la muy njëkk a def mooy génne ci kaso bi Euh, ñooñoom yooyu nga xamee ni dañu leen tegoon loxo ginnaaw bi ñu songee Capitole 2021 la woon moom Donald Trump mi ngi ko fësal euh, ci réseau social boobu nga xam ne mooy borom di di wuyu euh, trouve sociale waaye andiwu ci yeneen i leeral ca Venezuela nag kii di Nicolas Maduro moom nee na day wut ñetteelu mandat moom mi nga xamee ni 2013 lañ ko falaatoon ci ñaareelu mandat bi di élection boo xamee ni daanaka communauté internationale bi. bi euh, kenn euh, d'accordu ci euh, moom nag démb lu ko fësal moom tamit ci réseau social bi di X. jërëjëf sëñ Cheikh ci xibaaru bi ci réew yi bu leen fàtte ci kanam te Kwaïtil la noo dinañ dem ca bët saalumu réew ma ca Ziguinchor rawatina ànd ci ak bu Dia si léegi ñu xool météo bi ndaka lañ nar a yendoo tey. tey ci euh, daanaka ñaareelu bésu koor bi pour